alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh so fe nga def ma yéen ci jam alhamdullilah ah te yaa de bu ngeen dugal ci mbir yi VIP yi de ñoom buñ len dugale ci mbir yi rek ñaareel yi dañuy daal di yëngatu de xam nga ñom supporter len yombul seeni bagage bari ndax sak ba ci ñeuk muñ lay doon te boy dugg ci yow ñaarel tapis rouge muñ lañ lay lalal boo duggee ci biir ñuy muñ ba nga jaaxle boo leen séqee sëriñ ba ca ay ga ñuy muñ ba nga jommi ba rëg-rëg joo duggaale ci biir kër gi sax danga nga naan rëm ndax da ngay geesu yem ci moom ne ah ñii dañoo yor réew mi awee yor réew mi da yor góor ñi ci biir ndax fi ne jamono ji metti na lool dépense yi bariwul bu ko defee ñu daal leen koy wéer tey am ñaareel la ngay jotub dépasse te na aaw bu baax baa ko financé te koy nëbb mbokk yi mbaa yëg ne am na aawo yoo xam ne ñooy aawo xam nga aawo buñ koy waxal nit ngay ree booba seetal ba xam yow ndax li ngay def ci kër gi mérito naa woy wiñ la woyal te woyu buñ la ko woyalee te te yow doonoo ko waaye dee ko bañ am na ñoo xam ne mérito ñu leen di waxal boobu ndax doonuñu ko ndax milieu bo gis amna ñu ca tok ño xamne ñu deggu lañ kon lool dañ ko wara baye xel ay gi nak ku ko aye ci aljuma ji muy ñaar di ñett di ñent di ben première waji bu leen fàtte nak ne tay la aljuma te ku ne da wara a ndax julli takusan ba pare kat geesu yam ci sab sëriñ mu di la xol ba ta xef ndax tar ba ak set ga xet ga ja dox ngay sakku ñaan muy ñaanal njabot gi di dindi ci barke bi di la jox loolu waras na koo bàyyi xel de ndax bis yi ci des dañ dul am jot ci ñi liggéey ba mën a matale yooyu jàkkaarloo moom ak 32 daay mu tal la lool kon loola dafa mat doon loo xam ne dañ koy préparé ndax bu boobaa bët ba dina gis léppam te néeg bi lépp a ngi lay xaar lay xeeñ waaye doom balaa ngaa xam ne ay ay neex nga am kooko avan kooko awanteel noppal sa yaram jëlaat pause nelaw ba talaat la ngay tam-tamee loolu dara dàq ko fowukaay bi moom abalante la rek ku jot sa bos fool ba mu neex la